بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوك جلدي نوغي نوغيين اسم وقتار كور تي بن تومبو ولا صاحب نياري تومبو تي موي lii tax koor war ak li tax koor wiir mbokk yi bokk na ci lii tax koor war mooy teruteg weeru koor wi maanaam weer sax ba noppi kii woor nekk mu kàllaf maanaam gént kon weer ak mu kàllaf te mooy gént yooyu mooy yi tax koor war waaye yi koor wér mooy kiy woor na nekk ko amum xel ba noppi nekk ci diiney lislaam kon mbokk yi tomb ñaari tomb yooyu yi nga xam ne ci lañu tàmbalee mooy tax koor war ak yi tax koor wér bokk na ci ba tey yi tax koor wér yéene joo xam ne dafa jiitu fajar te loolu jenn yéene jooju day doy bu fekkee ne koor la goo xam ne kooru toftaloo la maanaam koor gu ñu toftale la lu mel ni weeru koor bu ñu nee yéene nag bokk yi faaw day baax nu bàyyi xel ne yéene moomu farata la ci koor ndax faratay koor ñaar rekk la muy yéene ak fegu ci lépp luy tax yéene moomu nag dañ daa wax ne fi muy wéree mooy bu fekkee jiitu na fajar te mooy ne tàmbalee ci bi jant bi sowee ba ba ñuy wax ne jàpp jot na diggante boobu ci biir guddi gi loolu mooy jamonoy jàpp maanaam mooy jamonoy yéene waaye waxtu boo xam ne am nga càggante wala ak yéexe ba nga xam ne nee ñu jàpp jot na te fekk ne fasagoo woon sa yéene su boobaa sa bisu koor bobu du doon bis bo xamne bis bu wer la kon bokk yi wax nañu len legi li tax koor war moy saxu wer wi ne wer wi feñ na ki war nek ku gënt te mooy nek mu kalaf yoy moy tax koor war way yi tax koor wér moy ki woor nek ku am xel bañu doon ku ñak xel ba nopi nek ci diine l'islam na doon ko amum xel nekk ci diine lislaam te yéeneen ji mu yéenee koor jiitu fajar maanaam jiitu waxtu jàpp wi léegi wax nañu ne yéene jenn yéene doy na ci gépp koor goo xam ne day toftaloo te mooy lu mel ne weeru koor wala lu mel ne fukki fan yoroon woor wala juróomi fan yoroon woor waaye da koo fas yéene toftale kon jenn yéene ji dina ci doy waaye nag boo yéene woon nag dem ba ci biir nga am ndox am gàllankoor am ngànt tax nga dog sa koor tambali wat koor gi da ngay besalat yene ji da ngay besalat yene ji moy tax koor gi wer ay fekkee ne dara dugut koor gi mom yene da ngay yene won ci bis bu njëkk ba ba neweru feñ na yene jooju doyna ba ba waxat ne wer wi matna wer wi feñ na kon bokk yi ñu japp lolu ne len la rek ci li nga xamne moom la ñuy ubbee ci bis bi nga xam ne mooy bis bu njëkk ci weeru koor bi insha allah nu ci yokk rek sunna yi koor sunna mooy yéexi xëdd teel a dog fegu lépp luy taxa fegu ci fegu ci waxi waxi caaxaan waxi bebbant maanaam ay mayeeg ay léebëg ay xeeti wax yi nga xam ne day day reetaan loog yooyu nga fegu kon nga naka la ñuy yéenee ki nga xam ne day dégg yéene te xamul lan mooy yéene. Mm-hmm. naka lay yéenee lu ñuy tudd lay doon. wala lu mm-hmm. def ci xel lay doon wala lu fas ci xol lay doon. Mm-hmm. yéene ci ko jàngale ci réew mi mel ne suñu réew mii dañu koy leerale ci ni ñu koy dundee. yéene mooy weer wi feeñ na nga dem jàpp ba sell jël sa sijaada julli gee ba pare la comme ni ñu ko baaxoo defee fukki rakka ak ñaar def witar fukk ak benn loolu daal di fas foofu ne ci sa xel ci sa xol nga fas ne fas namaa yéenee woor insha allahu rabbi ba weer wi jeex ak jàmm insha allah bu fekkee ne suñu borom may na ma ko loolu mooy yéene loolu nag boo ko defee ci bis bu njëkk ba rek bis ci des yëpp yaa ngi dem di naafila def yëpp waaye nag fas da nga fasoon ne fas namaa yéenee woor googee ba weer wi jeex ndeem suñu borom subhanahu wa taala ànd na ca loolee day daal doy sëkk day day daal doy kon mooy yéene juñ doon wax léegi ne mooy benn faratab koor ñaareel ba mooy fegu fegu ci lépp luy tax a dog lépp loo xam ne jàng nga ci téere boo ko jëfee ñu ne la lii ta sa koor yàqu na loolu nga wattandiku ko kon yéene fegu ci luy tax dog yaar yooyu mooy mooy mooy faratay koor léegi maa ngi duggoon ci sunna yi koor foofu nga ma euh, delloo laajaat ma ci Euh, fa yéene jooju waaye euh, am na solo ba tey waaye sunnay koor yi day day mat a bàyyi xel sunna yi mooy yéex xëdd buñ ne yéex a xëdd nag mooy tey diggante bi nga noppee ci sa xëdd ak bi nga xamante ni euh, salaatu salaatu jot na diggante boobu wala jàpp jot na diggante boobu mu nekk yéex goo xam ne boo fi doon jàng lu tolloog saaru yaasin bu jeexee na ci daal yam yem yéex a xëdd bu toll loolu tudde yéex xëdd waaye gaaw a dog tamit mooy boo yëgee ne jant bi sona rek nga dog waaye bañ a gaawantu ba dog te fekk jant bi soogut kon dañuy lañuy ba dañuy bëgg nit ki sàmmonte ak digle yi bu baax a baax moo tax ñu digal ñu digal ko yéex xëdd gaaw a dog ndax yéex xëdd bu ñu ko waxee nit ki dañ da koy dimbali ci bu xëddee mën a julli suba waaye bu fekkee da ngaa xëdd da ngaa da ngaa def li ñuy tuddee mbastan mën ngaa julli te doo waat nga xam ne booy julli naaj lay tàng jër comme yenn ci ni ñu ko baaxoo defee. léegi nag yéex a xëdd gi li muy dimbali nit ki mooy boo boo yéex xëdd bala ngay tala tuddaat wala dara dañuy dégg ñu salaatu nga mën a julli ndimbal lay doon ci yow gaaw a dog gi tamit liñ ci jëblu mooy comme waxtu waxtu wi jot na jeex na sowu jant la fenk eh, fajar la ñu waxoon ba sowu jant bu bu jant bi sowee dama xëddi woo maanaam dogi dogi woo day benn kon heure bi ñu la joxoon heure bi ñu la joxoon yaa ngi koy bëgg a weesu te loolu gënul ndax dañu waxoon ne ay ay xaafisa ala laahi maanaam baax na ci jullit muy sàmmanteeg dayooyu suñu borom yi maanaam frontières yi bañ di ko jéggi kon yéex xëdd gaaw a dog googu la mu muy sàmmanteeg fiñ la fi ñu la yamloo mooy sow jant bi nga daal dog ci sensé ñetteelu sunna bi mooy fegu ci ay waxi caaxaan maanaam boo wooree nga bañ di nekk di wax ay wax yu xoromook wax yu ay ay reetaan yu ay waxi mayeeg ay léeb ak waaw mbokk yi kon foofu la ñuy tàggoog yéen noo ngi leen di jox rendez صدق إن شاء الله تي أسكن تي في إن شاء الله ألي الله دفلنا توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان